bijaahihi yaa xayra xaadin sayxaa iqhar bi li kulla man tabalaxaa waliyaha muxjila saynin jallaxaa bijaahihi li ya idaaya daxdixaa yaa man xabanta kulla man tadaxdaxaa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii bis bu tedd bii ñu nekk tey di ñaan suñ boroom may ñu ñu fekk ko déwén yu bare bare bari di jiital nag ci nuyoo boobu njabootuk sëriñ Touba gi nekk ci tant bi di nuyu euh, monsieur le maire bu commune bu Dingiraay muy Mamadou Kébé Gadiaga ak délégation bi nga xam ni moom la àndal kon nuyoo boobu maa ngi koy tàmbalee ci Serigne Cheikhouna ak eh, njabootu ala Serigne Gueye yi yëpp nga xam ne tey jii bis bii ñoom ñi nga xam ni ñooy ñi nga xam ne ñoo ko taw di ko taxawal ma dellusiwaat ci monsieur le maire rek ci préparation gàmm gi ñu amoon li ñuy wax CLD tënk ay yitte euh, jébbal jébbal leen ko ñoo ak yeneen autorités yi nga xam ni yëpp yitte yooyu concerné na leen li ci concerné maire it mu jëloon ci ay engagement engagement yooyu monsieur le maire la nga ca def ñu ngi la ciy sant bu baax ñu ngi la ciy gërëm bu baax ñu ngi lay ñaan itam nga gën koo man yi nga ci defulit ñu ngi koy muñ di ci gërëm borom bi tey ñaan bu déwénee nga man ko di sant waa tund bi nga xam ni ñoo ñëw fii ci wàccaayu gàmm mi di ñu jàppale ñëw fii ci bisu gàmm bi ànd ak ñun ci liggéey bi duñu jàppale ñii formé wu ci ay daayira ak ñii formé wu ci ay mbootaayu jigéen ñoom ñëpp fan yi yëpp ñu ngi ci dëkk bi di buub di bale di ratu di defar loolu ah, tey jiit ñu ngi ci dëkk bi di togg di yàq di jox gan ñi di servir loolu yëpp ñoom waa tund wi muy xale yu góor yi ak mbootaayu jigéen yi ñoo ko àndandoo ànd ko daayira yi fi nekk di liggéey liggéey boobu na ngeen xam ne ñu ngi leen di sant bu baax te yëg nañ loolu ñu ngi leen ciy ñaanal itam suñu borom may leen ngeen gën a maanaam taxawaay bi suñu borom kàttanal leen suñu borom um leen ci mbëkk mi ba ngeen mën a toogaat ci réew mi te te doyloo seenum réew bu leen gëm seen bopp gëm leen yàlla te doyloo seenum réew doyloo seen wërsëg wërsëg lu gàtt la te li muy gàtt gàtt dund gi nga dund moo gën a gàtt wërsëg wërsëg boo ko tekkee ci war ak ay sëg la yooyu wër képp jëlul xaru mbëkk mi jaamu ji wuleen yàlla alal képp ngeen di wuti bu doon jaamu yàlla suñ borom nee na inna ardallaha waasixun fu ñu la xatale nga bañ faa bañ a jaamoo sa borom jóge fa dem feneen boo ko deful yàlla yedd na la ca togg nga toog yéen nag fi ngeen nekk kenn bundu xotaalu leen kenn defu leen dara yéen a ngi julli yéen a ngi woor yéen a ngi def li ngeen war a def lan moo leen di xiir ci ngeen di dem ci mbëkk mi ngirub xaalis xaalis boobu su ngeen ko amee da ngeen di dee su ngeen ko ñàkkee da ngeen di dee bàyyi leen fi xaalis bi li ci seen poosi wa ma min daabatin ala al ard illa ala llaahi risquha képp koo xam ne suñu borom wàcce na la ci kaw suuf xotti sa gémmiñ gi ngeen fay fekk liggéey leen ngir bàmmeel yi te bàyyi bis bi ngeen mit bis bi ngeen da a dem di ay béngal bis bi ngeen daqaaree xam ni trois cent millions du dara buñ leen da fay du leen jariñ dara toog leen ci réew mi te ngeen gëm yàlla te doy loolu li ngeen am kon mbaykan maa ngi di ziar suñu sang suñ Seexuna Gey di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér barkat àla sin bi di wax ci turu fédération bi bi nga xam ne Mame mbay moo ko jiite Mame Mbaye Ndiaye waaye bu ñu taxawee fii jël kàddu bi suñu xel day dem suñu Ousmane ñuy ñaanal ko moo sëriñam ba mu fekki yàlla suñu boroom dolli leen ay maqama dolli leen ay leer ngoon sëriñ bi nee ne moo ngi sant mboolem fédération bi ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci Badar am ko ci gàmm Badar nga xam ne mos ñoo dañ di séqi ay jéego ngir dëkk bi jëm kanam ngir gàmm gi jëm kanam waaye nee na mu ngi leen si sant di leen gërëm ah, xam na seen paste xam na seen taxawaay xam na ni ngeen mel si moom nee na mu ngi leen si sant bu baax di leen ñaanal seen taxawaay mu yàgg lool ngeen yàgg ànd ak moom bés bii waaye nag ñoo ngi soññ suñu bopp di soññ mboolem koo xamante ne ni ma mbay war na la soññ mu jaar suñu kàddu ñu wax ne ñun ñi àndoon ak sëriñ alaaj sëriñ gay Badar yàlla suñu borom dolli ko ñun dañu am ab joxoñ joxoñ bu leer boo xam ne sëriñ bi dañ ko joxoñoo joxoñ boobu kenn ku nekk ku àndoon ak alaaj sëriñ Gueye gis nga ko xam nga ko ndax li waral loolu mooy ñun ñëpp daf ñu daan xeetal Badar ñun ñëpp ci mujjug sëriñ bi dañ daan xirtal badar ngir ñu ñëw badar di fi taxaw sunu lépp nekk fi dem na sax ba wax ñu na fi wut ay màkkaan ngon ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi tey wuyoo kër gi li nu war mooy suñu lépp mooy badar ñu tànk buñ séqi rek ñu gën a séqi bu raw boobu ndax pasteefu sëñ bi mën nu ko jàpp sëñ seexu naa pasteefam rëy na trop ay jéegum rëy na trop waaye ku nu yéene la ndax loolu daf koo wax dafa wax ne man de dama faskee ne doon murit sàdde te dama koo faskee ne ànd ak yéen euh, sëñ seexu naa gi sëriñ Moustapha gi Badar sëriñ ma yabal ab ndénkaan laay jël si moo ma tax a jug ma dagg sama yitte yëpp yow sëñ Moustapha gi yow lay waxal sëñ Moustapha Guèye sëriñ naa Guèye sëriñ bi moo ma yebal ñaari yoon bii mooy ñaareeli yoon ma di fi ñëw moo ma yebal am dinkaan damaa war a liggéeyal sëriñ Touba damaa ñor tey damaa tax a jug sama ruu gii sëñ Touba laa ci war a liggéey muy sëñ Cheikhouna Guèye mii badar gis ma sëñ Touba moom laa gis gis jëm bi sëñ sëriñ bi bi may ñaari yoon ci ndénkaan moo di ma ko wax damaa bëgg ndénkaan lekk soxla ma soxla ma million ay milliards laa soxla damay bëgg liggéeyal sëñ sama sëriñ jërë ngeen jëf noo ngi jéggalu bu baax a baax a baax. maa ngi wax ci turu daayiru ahlu badar bi nga xam ni moo nekk Touba ak Kaolack Thiès Dakar Tivaouane Badar ak bu ñi nga xam ni tamit ñoom la yàlla teg ci bunt bi ñu nga xam ne ñoo jiitu ñu topp ci ñoom muy bàyyi Ablaye Kodd Thiam ak Ibrahima Thiam. ak euh, Thierno Guèye ñooñu ñoo jiitu ñun ñu topp ñun ñu ànd rek doon benn say di yëkkateendoo di tegandoo kon ñoo seen kàddu laay waxee ci wàllu daayira kon ñooñu ñoo yable ñëw fii di siyaare sëriñ bi di ànd ak moom bés bi ci liggéey bi yëpp rek ñu fas ko yéene ànd ak moom at mu ne di ñaan ñu yàgg koo def kon ñoom it wax dëgg yàlla ameel nañu nit ñi cant waaye ñoom sant nañ ñi ndax mbooloo mi topp seen ginnaaw di leen déglu te lu ñu santaane ñu def ko ñoom ñoo ngi leen di sant ñu leen a fay ndax alal dafa sax ci xol boo ko faral di ko laaj lu bari rek dana bu amut xel dana jàpp ne leneen la waaye lii liggéey suñu borom la lu ci waaye def ren bu déwénee da nga koy gën a man kon nañu ko góorgóorlu waat bu baax a baax a baax a baax noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di am mbégte lool ci ñëw fii ci barab bi fekk ñu suñu mbokk Serigne naa Guèye ci turu njabootu Serigne Abdoul Ahad Mbacké bi nga xam ne. bi ñu ko tuddee bis bi ñu jokkoo commission bi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu culture ci turandoy seen laxat yi ñu sàkku ci man insha allahu taala ma teewal leen ci bis bi di wax ci seeni tur comme membre la ci biir euh, commission boobu ñu ñëw fii insha allahu taala ànd ak suñu xarit suñu mbokk Euh, sëriñ Modou mu sëñ Moustapha ak sëriñ Abou mu sëñ ñu ñëw war fee ay kàddu yoo xam ne xam naa du doon ndax jot bi ni mu demee dunduk sëñ Abdou Lahad Mari Sufo waxtaane ci benn jotaay rawatina jotaay bu mel nii ndax 1914 ba 1989 presque 75 ans mën nga ma ko nekk li ci benn jotaay bu yomb rawatina bu dee jàmbaar waaye daal li nga xam ne ginnaaw bu ñu santee mbokk yépp di ndokkeel it tànn gi ñu tànn suñu turandoo di ñetteelu xalifa cheikhul xadim tudde ko gàmm gii di ñaan suñu borom li leen xiirtal ba tax ngeen def ko yàlla leen yàlla defal xéewal goo xam ne dana am fu mu tàmbalee du am fu mu yàq di leen sant it ci tudde gi ngeen ko tudde gàmm gi xam naa nag dara du hasard lépp lu am rekk am na sabab doomi aadama mën naa xam mën naa bañ a xam waaye ku toll ne Sëriñ Abdou ak li mu liggéey ci biir réew liggéey ko ci biir tariqa bi liggéeyal ko lislaam dëkk bii nga xam ne dafa am cosaan ñu ñëw di fi yëkkati kàddu yoo xam ne day nit lenn ci ay jaar-jaaram ak dundam dafay mel ne dañoo delloo mbir ma ci cosaanam kon nag ñi ngi sant bu baax a baax ci tànn gi ngeen ko tànn mbokki Sëñ Abdou Lahad euh, duñ jël di ko waxtaane ci wàllu askan ndax ku ñu xam la waaye daal liñ mën a xam mooy nit du tànnal boppam aw askanam yàlla koy tànnal aw askan yàlla nag bu nammee ci nit mu nar a feeñal ay résultats yu baax nara a jamono yàlla daf koy tànnal ay waju moo tax la Busiri waxoon ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wane ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo tànnal ay waju loolu moo xew ci si Ibn Lahad mi it moom it ndax bu ñu waxee ñaar ñi ko seq diggante Mbàkke ak Mbaakool ñoom ñëpp askan yu sellan ci mbaax ñu xam leen ci ragal yàlla waaye askano ci mbaax dong doyul donte yaa ko gëne ka ko yàlla defal maanaam yaa ko gënee ka ko yàlla xañ ki yàlla xañ askan woo xam ne marqué wuñ jamono bu yàlla mayee nga bokk ci askan wu marke jamono yaa ko gëne kooka yaa ko tane kooka waaye nag yàlla la ko defal léegi nag bokk ci askan wu baax la ñuy séntu ci yow mooy ak baax bokk ci askan wu baax ginnaaw bu nekkee ndam ci yow ba noppi aw sas la ndax loo def lu dul baax rek day doon loo xam ne da ngay daal di fés moo tax moom doyloowul rek aw askanam waaye ci doom yi soxna jaar fépp dafa jaar ndax benn waykatu arab mi ngi wax ne askan wu baax wu bokkut ak nit def liggéey ci dundam dafay mel ne loolu amalul njariñ nit mooy la moo xam ne bi jiddi la bi jaddi kullu majdi fa hal jaddun bila jiddin bi mujj nee na bi jiddi sama farlu bopp moo ma may lu ma am waaye laa bi jaddi du sama maam kullu bi teg tedd nga li ma am sama liggéeyu bopp moo ma ko jox waaye bu sama maam mu ne fa hal jaddu ndax maam ju baax bilaa jiddin bu ënt ak farlu bi bi mujj din dana jariñ dara tontu la mooy déedéet say bilaxat nag lool la xam moo tax bi mu jógee jaar fi doon yi soxna yi jaar fépp jaar baar bi duñ ci guddal waaye daal li nga xam ne ci lañu ci lañu ñu gën a yitteel mooy doon na na kilifa goo xam ne jamonoom daf ko soxla woon mu ñëw yor melokaan yi nga xam ne lii rek la jamono yàlla daf ko dajale woon ci moom ndax kilifa daf caa baax ak dëgër kilifa daf caa baax ak ngëm kilifa daf caa baax am foo jëm tam leer moom nag waxuma la sax jëmm ji waaye kàddoom rek ku ko masaan diglu da nga ko bàyyi xel bu ne woon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñëpp dañ daan teg ndax kàddu gu dëggu gi ànd ak leer gi dënn yi ngi dugg dañ koy teew moo tax ñu tuddi woon ko ñàkki caaxaan moom euh, kenn musa yabe diine ci moom ndax kilifa diine daf caa baax foo foo tool foo tollee ak foo toog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 Sëñ laxat nag foofu la taxoon taxawoon ndax nit bala nga mën a liggéey da ngay dëgër ci fi nga nekk te du ëmb sanqalas kenn bay ëmb kersa kenn mooy tax nga mën a wax ñëpp dëgg gis nga dëgg soo doonee kilifa te bëgg ko mën a wax da ngay mel ne Sëñ Lahad ci set ak ñi ma dëgg dana leen ci nett li léeg-léeg nit dana bëgg a wax dëgg waaye bu àndeeg lu dul dëgg moo koy gàllankoor ba kaddu dëgg ga du mën a fay te loolu dana fés ci ay waxam léegi bu ma ci fàttalee dara ma nettali leen ci benn mbir pour wan la ne nit bu àndeek lu dul dëgg dana yor dëgg te du ko mën a wax dañ ne dëgg ak fen dañoo ànd ba ñëw ci benn barab bi ñëw ci benn barab dëgg ne ko nen dem fee mat demandé pala bu jëfandikoo fen fen wax ko du fen wax dëgg loolu fen demandé pala buy jar deux mille francs fen ak dëgg séq ko di lekk bi ñuy jëfandikoo ba mu yàgg fen attaqué borom restaurant bi ne ko saa saa weccet borom restaurant yow fëyagoo bay laaj weccet mu ne ko saa weccet mu wax wax wax mu ne ko saa weccet coow la jóg ñu wax borom restaurant bi ne ko bàyyi ko mu dem borom restaurant bi daal di bàyyi fen mu dem mu daal di dëgg daal ni waaw mu ndax na dëgg dëgg ne ko maa ngi nii toog waaye damaa lekk alali kenn moo tax mënu maa wax ku ëmb sa sanqal ëmb sa kees si laxat nag dafa setoon ndax kàddoom gam doon wax ak singoor ba muy tàggoo ku am ku dëgg moo ko ku ku yorub dëgg am foo jëm moo ko man bu ñu la santee benn war ngeen leen sant fukk ndax wane ne fi nga nekk ba am li nga yor ñoom bu du woon konom ñoom joo ci jot kooku mooy Cheikhuna Abdoul Ahad kon Sëñ Abdou nee na ku bëgg boo joxee nit ñi ñu topp la dangay ngay digle ngir yàlla te bañee a digle ngir sa bopp ndax ku digle ngir boppam nit ñi gantu ko ngir seen bopp ndax nit ñi dañoo bëgg seen bopp ko na ci lim doon wax te jamono soxna ko lool mu ne ragal yàlla ak garab la meññatam mooy topp ndigal tey mooy ko tere di wane ne kon garab gi bala moo meññ faw nga topp ndigal moytu tere kon garab gi am na meññat waaye meññat bi da ngay jaar ci li koy meññat kon ragal yàlla gu nekk ci dënnum nit liy firndeel ak meññat ma mooy nit ki mu nekk ci moom màndarga luy tekk na dafay nangul yàlla tey moytu ay tere kon daana wax ne ragal yàlla ak garab la meññatam mooy topp ndigal tey moytu tere yàlla nañ ci yàlla fay daana wax ne euh, li ma bëgg ngeen xam ko mooy samay wax mooy li génn ci sama jëmm du caa génn lu ñu wax ne maa ko wax rek maa ko wax xam nga nit ñi moom mën nañoo jëli wax yokk waaye kenn naa feneen ne nit ñi ne samay wax daal mooy lu génn ci sama gémmiñ waaye du caa génn luñ askan ne maa ko wax maa ko wax te jógewut ci ma ku ñàkk ko ni caaxaan ku ñu ne woon yi teg mu doonoon koo xam ne it li ki liñ soxla ci kilifa dafa dajewoon ci moom ci njaboote nangu njaboot dëkk këram gii këram gi yaatu na lool te bari na ñu fi daan dajane liñ naan bari na kilifa yoo xam ne biñ fi jógee lañ doog a xam bari na ay borom kër yoo xam ne ñoo leen yal woon te kenn xamu ko woon këram gi nekkoon kërum njaboot ñëpp di yëm seen añ ak seen reer di leen fa daan teg ci taxaw ak yërëm leen ak aar leen ak yiir leen waaye tam nag taxaw mu daan taxaw bu baax a baax ci ñi nga xam ne dañoo toll ci war a soxna mu wutal leen soxna def ci lépp day xool bis bu rafet mu takkal ay nit ay soxna da nga nag jikko juju moom sëriñ war nañ koo jàng suñu seexu moom buñ war a roy ci say la bari nañu soxla xam nga fi ne soxna yi gaa yi bëgg nañ waaye daa jafe gaa yi bëgg nañ lool loolu nag jikko ju ñu war a delloosiwaat wàll ci ñàggareem say blaat maanaam bàyyi ba bis bu rafet nga xool ñu bëgg soxna nga takkal leen ay soxna la ca war lépp nga def man sama soxna su njëkk sëñ Saali woo ma ko jox te ci këram bu mu ci kanam jumaa ji ci lañ ko séetale lépp moo def boobu maa ngi ci daara ji jàngale xam te ba may jox soxna si yëgu ma të julli nañ gee ba noppi oto ba gaare ci sama buntu kër bàyyi seen mbàkke ñëw ci sama bàyyi ko sëñ bi day jox ay soxna tey te Abdoulaye da cee bokk ma dugg ci oto boobu man ab ab siir la man xaw ma fu ma bu ma demee ko sëñ la dugg xam kañ ma jox waaw sëñ bee ko seetal la ca war lépp sëñ bi def dara def bu ko ci waa léegi loolu sëriñ si dañ ci war a ñëw gaa yi ñu soxla nañ de nañ leen di jàppale di leen te loolam da koy delloo cosaan la sañ musaaka Ka mi ko wax ci sëñ Touba sëñ Touba sëñ Moussa Ka wax na ci sëñ Touba ne baraana koy dox baraana koy dox di waccax baaraam ba ta xam ne yaa canal ndayam baayam ba canal ndayam yaa ko jox baayam baraana koy dox di waccax baaraam ba te xam ne yaa canal ndayam baayam ba kon jikko boobu suñu ceexla nga bàyyi ci xel ak maanaam gars yi dañ soxla soxla nañ loolu ay soxla yi bu ko defee nga leen di jàppale ndax ni jigéen ñi moom ku leen bàyyeeg ñoom kuñ fa facturé ba noppi ka topp ci yow bi dana yeex denc di ñaan suñu borom defal ñu taw ci xëy na dañuy mën a guddal waaye xam nañ ne dëgg dëgg dëgg sëñ bi waxtaane ko ci barab dëgg dëgg nga may ma tuuti ma toog ma ma wax ak sëñ sëñ sëñ suñu ceeb village boo xam ne dama koy sof ci awa xam bi gis nga alal alal ñëpp ko bëgg ku ko bëgg wuti waaye ko gën a bari le mooy coono ca kanam yàlla ndax kenn ku ne ci ñun ba damoo séqit jéegu des na ko laaj te bokk lañ koy laaj sa alal ji foo ko fàggoo ba mu ko fàggoo ba mu lew foo ko dugal kiirub dërëm bu ñëwee dañ koy laaj ne ko borom dërëm mu ne wu foo jëlee sa dërëm mu ne barab sàngam foo ko dugal mu ne barab sàngam dem na yoonam ana borom fukk wa moo fay gën a yàgg borom dërëm ba ana borom téeméer ba moo fay gën a yàgg borom fukk wa ana borom junni ba moo fay gën a yàgg borom téeméer ba ana borom million ba moo fay gën a yàgg borom junni ba ana borom milliard ba moo fay gën a yàgg borom million ba multi milliardaire ba nag ñu koy leen bat dërëm për dërëm yàlla yàlla suturaal bi alal bi boo koy fam ñeenti xeeti fam la lislaam maye lu ko génn dañ koy teg ci misaanu sari xool ba xam daggan na wala dagul ñeent yooyu mooy al ziraa al sinaa a tijaara al ijaara ñeent yii mooy ñeent buntu sax al ak mooy lan jàngi métier ba mokkal ko di liggéey di jafe li ci mën a dugg ci ci liggéey bari na al ziraa mooy lan mooy wàllu agriculture agriculture ci war a dugg ci wàllu ci dugg ci liggéey bari na ak tijaara mooy lan wala yoo dugg ci liggéey di liggéey di fay li ci mën a dugg ci liggéey bari na lu génn loolu nag dañ koy tag ci misaanu misaanu sari di xool ba xam dagan na wala dëgg léegi ne yow mi ne faaw ma am yàlla ne ba ngay laata juddu la yàlla bindoon ci sa biirum ndey la nga war a am kenn mënut a juddu ba génn adduna te la nga war a am amoo moo tax waykat ba nee na aqsir anaaka fa inna risqa munqasimun yati ilayka walaw fii jëppatil asadi kon defal naa ko booy noonu lay yàlla nga ne faw li nga war a am ngay am nga ne faw ma am dana la jural nga jëm bar sax par grâce jëm ba nga jëm barsa par garab jëm barsa si Fallu Mbàkke nag foofu lay jeexale waxoon na dara ci alal muy tënk bi nee nañ si Fallu yii may wax wax jal ko jël ko jeel ko jafe na te jàlla jàllal woo jëlluwu la ñu jël la jàlla jàlla jël ko jeel ko nee na jal ko mu doonu jóor nga jël ko ba mu jëriñoo ko ba mu jeex def ko jafe na te jàlla jàllal woo jëlluwu la suñu borom jëllu la ñu jël la jàll mooy denc la jàll la jël ko jël ko ndax dañ koy miiras moo tax mun a jal ko jël ko jeel ko jafe na te jàll jàllaloo jëllu la ñu jël la jal la jàll la jël ko jël ko jërë ngeen jëf yàlla na ko asalaamaaleykum sëriñ si moom si Abdou Lahad moom si Abou mag maa ngi di toog ak njaboot bi ma àndal lépp dinañ ci ñëw lim délégation bi nga xam ne moom la sëriñ Abou àndal ñu fii ci turu kilifa bu mag bi sëriñ Abou mi ngi ànd ak rakkam sëriñ Abou moom sëriñ si sëriñ moom sëriñ Moussa moom ànd yi rakkam sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Ahmadou Bamba moom sëriñ Amsa moom sëriñ duggee ci léegi ak jotaay bi ñu tëddee na bari baa ñoo xam ne daal ñor ko ñu bis bu ñor commencé ab laaj ci kàddu yoo xam ne si nii jaarale na teewul ñu baamuwaat ko mm. waxante ne ko fee léegi ci biir waaye loolu lépp wóor nañu wóor yàlla nañu sa baax ak sa bëgg lu baax ak li ñu xam fii ci kër gi ak njaboot gi bu fi kenn teewul doon ci njaboot gi da ngay mel ne yaa ngi ciy wóor si ñoom laa xam suñu saxaar yi sa liggéey moom ñun njaboot gépp xam na bu fi teewoo da nga ko doy lool xam ne wut la ci njaboot si ñoom laa kon loolu ak mbaax ak jikko ju rafet ju nekk ci yow moo ko sabab te loolu jikko ju baax ju rafet yéen maa ngi leen di nuyu di commencé nuyoo bi ci euh, euh, euh, njabootu suñu sëriñ xaadimu rasul te jóge Touba mooy surtout maam Bamba yi jóge Touba ca sant Mbàkke ñoom lañu njëkk nuyu ahlu sharaf ahlul quran ahlu sunna ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu bu baax Cheikhouna Gueye sawar nañ jaay ay mbiram lool ndax moom lan lañ ko xamale liggéey ak jaamu yàlla moom Cheikhouna Dieye yàlla moo tax ñuy wax ah liggéey ak jàmm yàlla lañ ko xamale dañ ko xamee sax boobu li ñu yooyu yoraguñ ko waaye daanaa fi jaar di ko nuyu dama daan wax toujours ni sëriñ bi ma gis Badar man intéressé na ma lool ndax bu ma ñëwee dongo yi la may woon ak forage bi ak tool bi la nekk ba léegi yàlla yàlla guddal fanam macha allah waaw moom sëñ naa ku baax la ushidulaaha di nuyu bu baax sama jarbaat Xaadim Gueye chef de village sama jarbaat dëgg la di ko sargal ci discours bi mu def ndax discours benn gënul tawxiid delloo nañu ci yàlla wax na yu wërsëg wax na alquran lu mu wax wa ma min daabatin fi ardi ila alalahi risquha wa ma min wa yaalamu mustaqaraha wa mustawdaaha kulun fi kitaabin mubin loolu alquran la ku gëm yàlla war ngaa gëm loolu di la bu baax xaadim tawxiid di ko wax nit ñi am na solo ndax lépp yàlla la yàlla mooy joxe yàlla mooy xaje te ku wóolu yàlla rek incha allah di nga am lu baax bu soobee yàlla bi ci topp xaadim discours patriotique bi nga def ndax bëgg sa réew dafa am solo ni nga ko waxee noonu la amee Sénégal pétrole baa ngi fi Sénégal gaz baa ngi fi Sénégal am na yeneen mais Serigne Touba ñaanal na wa kassir na xayaatal hazal balad moo ko wax ci Matlabul Fawzayni mais loolu boobu boobu ñaan nangu na kon suñu réew lan mooy suñu problème kay kan la ñuy jox suñu réew ba alali réew mi dem ci ñëpp loolu lañu war a ñaan yàlla nu ko yàlla defal insha allahu di nuyu ñëpp nag di wax ne diine moom nii la rek yàlla wàccoon nag nun bi waxee ni laqad kaana lakkum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju laaha wal yawmil axir yeex na yonent bi mooy rayukaay wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu alquran la yàlla wàcce nag ñun bi mu yónnee Seydina Mohamed muy gën gi mu ni topp leen ko bu ngeen bëggee mucc bu ngeen bëggee am sutura àdduna ak àllaaxira topp leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ góorgóorlu topp yonente bi xool li mu wax ñu def ko lu mu ñu tere ñu bàyyi ko yàlla wàcc nag ñun bim ñu wàccelee sëriñ bu tedd bu mel ni Serigne Touba nga xam ni lépp bind na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que bu ñu fàttali yàlla dafa jël yonent bi tagge ko ci jikkoom wa innaka la ala xuluqin azim kon nag loolu mooy jikko ab jullit jikko rek lañ koy tagge mm-hmm. na am jikko ju baax mais boo xoolee muqaddimatul am daax bi sëriñ bi bind di nga xam ni loolu ku ci topp rek sa adduna dina baax sa àllaaxira dina baax rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin hadal murida nafal marida ni'ma farida yunmi sarai وجاءت ذكري لموت ذكري من خير ما أدري قال الألائي وجاءت ذكري لموت ذكري من خير ما أدري قال الخلائق alhamdulilahi rabbil alamin mbokk jullit yi ñu ngi dellu di sant yàlla ci daje gi mu ñu dajalewaat fii waaye ñu bëgg ubbee suñuy kàddu kàdduy ñaan yu sëñ bi sàkku ñu jëmale ko ci kenn ci ndaw yi nga xam ni daan na fekke jataay bi ñu njëkkee suñuy kàddu ci sant ak ñaanal Cheikhna Cheikh Mouhamadul Mountakha ci yëg gi ak yitte ji sëriñ Mamor léegi la fi jóge ci sëñ bi la jóge mu yónni ko ci jataay bi kon ab liggéeyam ci lislaam liggéeyam ci yoon wi liggéeyam ci kër gi benn bu ci nekk war naa tax ñu ñaanal ko mu yàgg fi kon Sëriñ Muntaxa yàlla na yàgg ci àdduna te wér ndax naa li mu yor rëy na lool ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex jooju mu yéene ñëpp ba yéene ji li ci ëpp egg ci moom li ci des moo di kàdduy cant yoo xam ni dañ koy seppi ci kàdduy cant yi ñu war a jëmale ci ñëpp waaye kàddu yi sant la yoo xam ni dañ ko war a set dañ ko war a seppi muy kàddu yu jëm ci sëriñ Sidi Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke yitte ji nga xam ni moom la jox bis bi yitte ji nga xam ni moom la jox ak taalibe yitte ji nga xam ni moom la jox liggéeyal xaadim rasul yooyu day yoo xam ni yu ñu war a fàttali la bi ko sëriñ naa yëgalee bis bi ni ko Cheikh Abdoul Ahad lañ ko tudde moom ci boppam moo amoon yéene fekk ci bis ni ko sëriñ naa waxe léegi sëriñ Seexuna mii moo ko dogal ngant kon it lu lu ko yitteel la lu ko ñor la waaye nii sëriñ Seexuna moom sëriñ Amsatu Mbàkke waxe léegi ni mu limee délégation bi te am ñu mbàyyi sax dafay wane rek yitte ju sëriñ bi jox tudde gu ñuy tuddee bis bi sëriñ Abdoulaye waaye jàpp naa ni weesu na loolu sëriñ bi dafa am lu mu bëgg a dundal ci jataay bi ñu am muy diggante sëriñ Abdoulaye ak Badar muy diggante bu bu yaatu bu rëy boo xam ne liñ ci war a wax liñ ci mën a wax bari na lool kon ñaari kàddu cant yooyu mënu war a ñàkk génn te mënuñu ko taqale ak yeneen kàddu cant ci des donte yeneen kàddu cant war naa ji li ci topp sëriñ bi dafa sàkku bu ñu dajee ak mbokki taalibe yi àdduna bi yëpp dina seetaan ñu jële ci loo xam ni ñëpp dinañ ko mën a jariñoo muy risaala boo xam ni moo jóge ci dëkk bi jëmul rek ci taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi waaye jëm ci waa Sénégal gépp jëm ci képp koo xam ni lenn ci li ñuy wax mën na la mën mën mën nga cee jëriñ ñu jël ci ñetti tomb mëni suta waxtaane lépp waaye li njëkk moo di dañoo nekk ci am réew réew moomu tudd Sénégal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mii ñu doon waxtaane dafa am bis mu ubbee ay waxam ci ni ay sénégalais lanu kon moo nu boole ci biir réew mi boo xoon weneen tur ñu yam ca foofa waaye kon ay sénégalais la ay citoyen lañ yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi kon lii xew ci réew mi mënta ñàkk mu yitteel ñu kon ñaari mbir yoo xam ni euh, yitte la du ñu war a waxtaane ñu bàyyiloo ci xel ñëpp bi ci njëkk moo di li ñuy wax situation politique wala contexte politique bu réew mi Sëriñ Abdou Lahad mi doon wax léegi am na lu mu ci junj contexte bu jafe la waaye du ñu fi génnee ay taalibe rek ak ñeneen ñoo xam ne ñoo bokk diine ji ñoo bokk réew mi ñooy àndandoo di yëngu ñi doon yëngutu fii am na ci ñoo xam bu ñu génnee dañuy àndaat bokk ci ñi yëngutu ci politique bu ko defee kon loolu kàdduy sëriñ bi war na ciy jug muy kàdduy responsabilité li ñuy njëkkee mooy ñu wax ni situation politique bi nga xam ni moo am ci réew mi situation la boo xam ni dafay laaj responsabilité bu mag a mag a mag a ci kenn bu nekk ci ñun responsabilité ci ki nga xam ni mooy sàkku responsabilité ci nga xamante ni moo yor te wax ni li ma jor man yéen a ma ko dénkoon bu ngeen ma ko laajaatee ma jox leen responsabilité la ci ñiy wut ndax lu ne na ko wutee da nga war a xalaat ni waxtu dina jot nga war a bokk ci ñiy taxawaat tàllalaat ko ngir sàkkuwaat ko kon na nga na nga ci jote war naa nekk jotin woo xam ni bu ko nit bu ci nit bëggee jaar ngir jote ci réew mi muy loo mën a gërëm lu nit ñi mën a gërëm ki nga xam ni moom la nekk ci loxoom te mu wa te mu wóor ko ni bu dul tey di suba dina génn ci loxoom war naa xam ni war na ci ànd ak responsabilité ndax lu nekk ci loxoom dafa am rek fu mu jaar loolu aw tur rek waaye maalikal mulki ku yor mulk ak dara lu ci lu ci rax ci loxol suñu borom rek la loolu mooy pas-pas bi ñu am kon kenn ku ci nekk nga wute ko ngor ñi ko yorit ñu yore ko ngor loolu mooy responsabilité ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñaareel ba moo di képp koo xamante ni yor nga ko wala nga yor fi responsabilité wala nga bëgg responsabilité war ngaa góorgóorlu ci li ñuy wax intégrité wu réew mi fexe ba Sénégal gii nu la jox nga delloowaat ko askan wi Sénégal gii nu la gii nga bëgg boo ci jotee askan wi fekk li nu bëggoon ci réew mi ñu mën caa jot loolu kenn ku ci nekk responsabilité la yëpp ci yow nga góorgóorlu ci baax a baax muy protéger l'intégrité du pays ci intégrité bi nag buñ ko waxee du territoire rek waaye culture li ñuy dund muy Sénégal ak yu bare bari valeurs yi nga xam moom lañu fekk ak mag ñi ñu fekk yooyu yëpp dafa bokk ci biir protection de l'intégrité de notre pays kon loolu responsabilité la yoo xam ne ñii wut ak ñi nga xam ne ñoom la nekk ci seen loxo war nañ cee góorgóorlu bu baax baax réew fi ñu toog lii nuy def jaamu yàlla la waaye jaamu yàlla mënees koo def te tegoo ko ci kaw jàmm ak salaam moo tax lislaam sax léppam jàmm la tur bi ci boppam sax jàmm la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bi ko suñ borom diggee xare badar badar bi nga xam moom lañu tudde fii alxuraan ngi ñuy ni bi yonent bi sallallahu alayhi wa a génnee la ko gënaloon mooy daje am na beneen option bi nga xam moo taxawoon ci kanamam mooy daje waa Quraysh nangu alalam ñëwaat toog mel na ni ci alxuraan suñu borom a ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dafa mel ni loolu la gën a loon waaye loolu bokkul ak li gën moo tax mu yóbbu ko Badar kon nga xam ni kon lislaam lépp jàmm la bu demoon bas ba leneen war a am sax dafa mel ni xolub jullit bi la cay indi jàmm rek moo gën ci moom kon loolu ñu koy bàyyiloo xel ñëpp muy delluwaat ci kàddu gi mu njëkkoon wax muy kàddu responsabilité la ci toog moo di situation wu ndaw ñi loolu mënuñu see ñàkk wax ndax am réew ay ndaw ñoo ko yor fii ci jataay bi ñu nekk réewum senegal ci boppam gij naa xool statistiques yi waaye bi ma ko mujjee xool yaakaar naa li fi nekk ci ay ndaw yu amagul ñeent fukki at ëpp nañu 65 pour cent réew moo xam ne nag téeméeri nit yoo jël euh, maanaam juróom-benn fukk yi ak nangam ay ndaw lan lañ leen di jàppee kon réew moomu lu laal ndaw ña képp ku fi am responsabilité sa kàddu war na saa jóg loolu rek moo waral kàddu sëriñ bi mu jëmale ko ci ndaw ñi mu wax ne ah ñun di ay jurit la danoo jox suñu bopp sëriñ Tuubaa moo nu fi dajale ñu wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu ay kàddu la waaye bu kàddu yi génnee dafa am lu muy indi mooy dafa am responsabilité bu wax bu dox sa ndog moo xam ni buum goo xam ne yaa ko yow sa baat jox ko suñu borom buum boobu nag saay bu la neexee nga rocc ko teg fële waaye fii ak buum gi yaa ngi koy roof ci sa baat ndigal yi ak tere yi dafay wàcc ci sa kaw dafay nekk li nga xam moo lay tënk mooy frontière bi nga xam ne sa ko koo suñ suñu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jàngal ni wuti wërsëg dafa bokk ci yi yi ñu sant ab jullit sëriñ bi sëñ Abdu bi muy waxtaan léegi waxtaan na ci lu jëm ci wàllu wërsëg moom sax ameel naa ko àllarba xam naa duma ma xàmmee waaye xëy na bu ñu noppee euh, àllarba ji dina ñëw suñu laa waaye nag dinañu fàttali mbir mooy de lislaam diine la joo xam ni dafay soññi doomu aadama bi ngir mu wuti ndax loolu mooy sabablu waaye nag jullit bi dafa war a xam ni fi mu yam digganteem ak boroomam mooy sabablu am ak ñàkk loolu ci loxol suñu borom lu nekk sabablu gi nag mënta génn li nga xam moom la yàlla digge digle mënta jéggi li yàlla li yàlla digle jëm ci li yàlla tere kon loolu mooy kàddu yi nga xam ni sañ nañ koo wax suñu mbokki taalibe sañ nañ koo wax suñu bopp mooy jurit bu fi jógee lépp la doon def di ci di ci wut wërsëg na nga ci gën a góorlu ndax loo am lu mu bari bari doyul ndax lislaam dafa soxla ay doole wa aiddu lahum mastataatum loolu doole jooju bokk na ci doole alal fi ñu toll doole ji du dooley kàttan waaye doole alal la kon nooy def ba mën koo am te mu dagan lu baax la lu ñuy soññee la waaye nag na yam ci lu dagan yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am ay nit ñu mas a ñëw ci moom ni ko ñun de ñi am dañ ñoo gañe ndax ñoom daal bari na yu ñuy def yoo xam ne ñun mënuñu koo def dañuy saraxe te ñun mënuñoo saraxe mun leen ah loolu day du jafe-jafe ndax boo rombee aw xeer ci mbedd mi sax boo ko fa jëlee sarax la boo defee nangam ak nangam sax sarax la yonent bi sax lu ñu lu mu wax ñu ne ko ah loolu ñun buñ ko defee ñi am alal def ko kon ñoom dañuy saraxe noonu saraxe ci luñ mënul mu ne la ca des nag wërsëgu suñu borom la xéewalu suñu borom bu leen defal kon wuti ak am lu ñu soññee la ci lislaam waaye nag wutin woo mooy bi am solo mooy li mat a bàyyi xel kon wutin wi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndaw ñi ñu xam ni lislaam yonent bi daf ñoo jàngaloon ni buñ ko xaajee ñaari xaaj benn ba moo di muñ mu waxaat ñu ni li ñuy wax yàkkamti ci seytaane la ci mbirum seytaane la bokk te am na yoo xamante ni dafay xaw a jege yàkkamti la foofu rek nag la sañ yam kon yéen ñi nga xam ni yéen aju ci kër gi yéen ñi nga xam ni yéen ay njabootu xaadimu rasul am na loo xam ni waru leen koo sañ def kon ñu góor góorlu bu baax a baax góor góorlu ci kenn ku nekk la nga yaxantu nga sàmm ci sàmm ci sàmm ci te góor góorlu ci te yéen yéene ci yéen yéene ju rafet eh, la ca des nag nga bàyyi ko ci loxol suñu borom yàlla noppi na ci wërsëg yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni nit ki bi mu amee ñeenti ñeen fukki fan ci biirum ndeyam la yàlla bind ñeenti mbir ci moom bokk na ca ñeent yooyu ba mu ci tudd mooy wërsëgam nga xam ni noppi na ci kon ñu góor góorgóorlu bu baax a baax ci loolu la ci topp nag muy ñetteelu tomb bi nu xam ni fii ñu daje mu di badar dafa am lu ko sanc kon ku fi bokk nga xam li ko sanc xam li nu fi téye xam li nu fi baax li ko sanc mooy jàng alquranul karim ak jàngale jàng diine ak jàngale loolu mooy sanc bu njëkk ba mooy sancu sëñ Mayib li ko sancaat te mooy sanc bu dëgër bi mooy liggéeyal xaadimu rasul kon ñun ñi nga xam ni ñoo bokk ci ñu aju ci dëkk bi aju ci kër gi bokk ci tund wi tey ñi ma nettali ni seeni maam liggéeyal Serigne Touba ci ñaqal ko fii lañ ko njëkk a defee ñu bare bari la ci jataay bi ci tund wi bari na fi tooli àllarba yooyu dégg bari na lu fi jóge jëm ci jumaay Touba ci badar gii la tàmbale kon li sancaat dëkk bi moo di liggéeyal Serigne Touba kon nun moo tax jikko yi ñuy wax ci Serigne Cheikhouna mënta ñàkk nekk ci loolu nag maa ko wax te man la engagé mënee suta am ci réewum Sénégal gi luy tawféex di xéewal jéggi fi xaadimu rasul ndax lépp yàlla da ko teg ci loxoom kon nag bu nu yàlla dogalee ñu bokk ci njabootu sëriñ bi kon nun waru na wut dara lu dul jéem a nekk xaadimu rasul jéema a nekk njabootu sëriñ Touba jéema nekk liggéeykati sëriñ Touba jéem a nekk taalibey euh, sëriñ Touba loolu rek mooy suñuy cër leneen luñ jéem a wut nag leneen luñ jéem wut te jug duggul sax ci biir yéene jooju bu nu ko amee du nu jariñ dara man dey li may dugge ci waxtaanu Sëñ Abdu Lahad moo di leetar bi ma gis ci sama bët mu bind ko ci loxoom jëmale ko ci sunu waajur la mu ko wax lu dara lu dul la mu ko wax du dara lu dul bis ni ko tey na nga yëg ni am nga laq nga ngërëm laq nga ngërëmul sëriñ Tuubaa ne ko loolu nag duma ci dara sëriñ bee ma sant ma wax la ko waaye mënoon na ko woo ci néeg wax ko ko waaye woowu ko ci néeg da koo bind cib lettre lettre boobu ma teg na ci sama kon loolu rek mooy li sëriñ bi daan sàkk loolu it nag la ñuy moom la sëriñ bii di sàkk kon yéen ñii di taalibe yi kàddu boobu yéen ko moom nu ànd noonu ñun ñëpp jéem a liggéeyal Serigne Touba jéem a sàkk ngërëmul Serigne Touba leneen li mu sàkk lu loolu amul njariñ ci loolu moo doon kàddu yi la ca des nag kàddu cant la cant yi mu ngi jëm ci mbokk yi mbokk yi nga xam ni danoo bokk sëriñ May bokk dëkk bi bokk askan wi loolu mënuñoo def bis bu toll nii te sëriñ bi jëmalewul ay kàddu cant yëkkatiwul ay kàddu cant jëmale ko ci ñoom ndax kenn ku ci nekk coono ba nga cay def ba nga cay tàggoo toggoo la mu la mu ca xamaku si néew mu ëpp la mu ca xamul te xam na ni la mu ca xam coono bu diis la am na lum la jaral kon am nay kàddu can yoo xam ne war naa jóge ci moom jëm ci yéen mënew ma ko ni mu koy génnee ci xolam waaye ma wax ko rek ngeen xam ne am nay kàddu cant yu jóge ci moom jëm ci yéen la ca topp mooy dëkkandoo yi loolu suñu xaar yi ni mu ci wax doy na sëkk ndax moo dëkk moo dëkk ñoom lu bare bari lam cee xam xëy na sax nun duñ ko xam kon kàddu cant yooyu jóge ci sëriñ bi jëm ci euh, dëkkandoo yi kàddu cant yi war naa jóge ci ci ñun jëm ci presse bi nga xam ni ñoo fi teew teewaay bu rafet ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan suñu borom kenn ku ci nekk organe bi nga représenté la nga ci yéene Euh, yàlla defal la ko muy tawfiix ak xéewal gu yaatu te ngeen mën a liggéeyal yàlla liggéeyal loo xam ni day indi ridwanullahi taala ci kaw si la ci topp moo di cant yu mu jëmale ci autorité yi nekk ci localité bii ah gàmm gi day ci version bu njëkk ba am na téeméer at ak nangam bi ko sëriñ bi taxawalaatee ak léegi am na ñeent fukki at ak nangam jëm juróom ren jii de lañ ci mas a def CRD yëg mu ñu yëg ni am taxawaay dayo gàmm gi laaj na loolu du ab càkkutéef ci ñu nag ndax ni nu ko waxe rek dañoo gërëmloo yàlla doyloo ko waaye dafay lu jaadu ndax mbooloo mi fiy daje jaadu na ñu taxawu leen ndax ñoom lépp lu fi nekk ci seeni loxo lañ ko lañ ko teg kon ñoom yëg nañu responsabilité boobu li ci neex sëriñ bi dëgg-dëgg du sax li ñu def waaye responsabilité bi ñuy yëg ni fii kat lii nu fiy def dayo bi mu am amul ci tund wi lu tol noonu kon ñun war nañu ci dugal suñu loxo kon kaddu loolu noonu bu da bu yemoon foofu rek kaddu yi cant war naa jóge ci ñun jëm ci yéen préfet bi taxawaay bu mag a mag la ci def yitte ju mag la ci def monsieur le maire dégg ngeen ko léegi mu wax ay kàddu daaw dégg ngeen ko fi ren dégg ngeen ko fii te mel ni yaramam euh, ñu ngi koy ñaanal suñ borom defal ko tawféex ba yaram wi gën a woyof waaye du ak man gi waaye yéene rek moo ko indi ci barab bi kon ngeen xam ni autorités yi fi nekk yëg nañ ni am na lu fi xew seen doole nag am na fu mu yem am na lu ñu def am na lu lu des ni ko suñu xaarim waxee waaye kon tàmbali la rek Euh, mën naa dem ba egg ci niveau département mën naa dem ba egg ci niveau région mën naa dem ba nekk ci niveau national parce que ñi yor bis bi ak yéene ji ñu ci am amul amul yamuwaay fu seen doole toll mën nañ ko mën nañ ko cee def kon ñu ngi leen di sant kenn ku ci nekk taxawaay bi mu ci am waa Croix Rouge ñu ngi fi ci suba ba léegi ñu ngi fi te dañuy fanaan ak ñun district sanitaire yi fi nekk ñu ngi fi ñu ngi ànd ak ñun euh, Sénélec taxawaayu rafet a rafet lañ am ci bis bi fan yi yëpp xam nañ ni euh, fii ak nawet bi dañuy doog a installé réseau bi waaye am na ay jafe-jafe yu bare bari yu ñu nemmeeku ci réseau bi bis bisu tey jii lu ngeen nii li fi doon am ci fan yëpp amu fi loolu it seen taxawaay la yemuñu ci loolu waaye barab yi nga xamante ni soxla nañ fa courant bu bu ëpp courant bi nga xam moo fi nekk sax taxaw taxaw nañ taxaw nañ ci taxawaay bu am solo lu fi ab làmp war fee am seetlu ngeen ni dëkk bi ak tolluwaayam ak li li ñu sédd ñeneen ci des bokkut léegi nag loolu dañoo xam rek euh, dayoo bi nga xam moom la bis bi am kon bu bu jat bu mbooloo mi dajee jaadu na ci ñun ñu yëkkati kàddu yooyu muy kàddu cant jëmale ko ci ñoom ñu tëje nag daayira yi hmm? gendarmerie maanaam bépp service service d'hygiène service vétérinaire ñu yor affaire u euh, càmm gi ak environnement kenn ku ci nekk la la waroon ci bis bi woote nga def nga la nga ca man kon ñooñu ay kàddu yu cant mënta ñàkk jóge ci ñun jëm ci ñun jëm ci ñoom ñu ngi sant bu baax a baax te ñaan suñu borom kenn ku ci nekk service bi nga teewal euh, yàlla defal la ci ay xéewal ak i tawféex te di ñaan suñu borom li nga xam ni moom la mbokk yi di sàkku ci barab yi ñu nekk badar di Carrefour di barab bu ñu bare bari di bëgg di ñëw muy ay yoon ak yu mel noonu euh, yu bare bari jàppandi na loolu bokk na ci sàkkuteefi taalibe yi bokk na ci sàkkuteefi ndax taalibe yi moom nu man demee ñu ñëw li lu xew li wérte wóor mooy moom bu ñu ko nag i pax sax du leen tere du leen tere romb zur bu tuhibbu wa in bi bika daaru kon loolu noonu la demee suñu digganteeg Badar waaye nag sañ nañu li li nekk ci réew mi te nu koy séddale ci réew mi ñu wax ni badarkat am na ci cër ñu ñu soññ ci ñi nga xamante ni mën nañ ci dara ñu góor góorlu ci euh, ndax population bi rek lañ koy defal sàkkuwuñ fi dara lu jëm ci suñuy poche li ñuy sàkku développement localité bi la développement localité bi nag dafay yokk njàng mi yokk xam-xam bi yokk développement économique bi lekk yokk développement social kon yooyu rek mooy yi nga xamante ni mooy kàddu yi war a jóge ci ñun jëm ci yéen mbokk jullit di ñu ngi sant taalibe yi di leen soññ taalibe yi ñoom yéen ñoo bokk kër gi ni nu ko waxee léegi fii kat ay taalibe yu àndandoo la am ku ñu teg ci seen kanam muy seen jëwrin muy sëriñ Cheikhouna mate ko sëkk bu ngeen xoolee ci moom day na sëkk kon jarul kàddu yi di gudd kenn ku nekk li nga war a def xam nga ko góor góorgóorlu ci nañu nekk ay jurit yu wér nekk taalibe sëriñ Touba yu wér sàkku ngërëmul yàlla sàkku ngërëmul sëriñ Touba lii rek mooy suñu war-war bu nu ko defee am li nu bëgg bu nu ci bu nu ko jàdd bu ñu ci jàddee ñu ngi ñaan suñu borom ci xéewalu bis bi kenn ku génn ci yoon woowu ci saaw woowu suñu borom dellu si waat la ci saaw wi teg la ci yoonu dëgg ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin amin